alors transition le Issa Maba élections élection législative élection législative par rapport à que nous gis déjà Pastef Euh, la ñuy demee ci élection législative yi pour wuti ji ay député par rapport ak alliés yi nga xam ne ñoo àndoon ak euh, Pastef dégg nañu kenn ci ñoom muy maître mussa Diop euh, mu ci yëkkati ay kàddu di ci wax am na ci ñeneen ñoo xam ne aussi ñu ngi leen di dégg par rapport ak groupe WhatsApp ba fa amoon sax ñu ne soxna Aïda Mbodj mm, daanaka ñu ci bari moo leen di génne ndax ñoom ñoo ko waxal seen bopp législative yi amul benn risque bu ci Pastef jël Cheikh Bara bu fekkente ne mooy demal boppam waaw léegi nag fii nag dama lay dama lay dama lay defal analyse politique nag. Mhm. ak fii li ci kanam lépp. gis nga Pastef li may wax nag du Sonko waxu ko Jomaay wax ko maa ko wax bu leen ma dugg <laughs> bàyyi leen bu ma waxee dara ñu bëgg ko waaw bu ma waxee dara ñu bëgg ko yéegal ci Sonko ko wax Sonko waxu ko Jomaay waxu ko mhm. man maa ko wax man dama gis ne maanaam PDS dafa doon peese Pastef PDS oui moy dafa ñëw and ak mom ci bi deux jours élection avant élection présidentielle moy ginnaaw bi mu liiree ba xam ñi ñii dañuy gagné mu dem bi mu demee man dem leen ci sama ay jangat néna naa ca waxoon naa ci plateau jërul may tuddat yenen télé yi fii ci plateau bi mais wax naa ci benen plateau mané PDS législative lay carte mais cartul poste fi wax naa ko ah Pastef tamit ba xam. biñ waxé né légui kat ci bañeeru Pastef la démé demee deux jours après da nga dégg PDS génné pexem kon Pastef PDS la doon waxal mom PS la def PDS moy légui intercoalition wet wetal ba ma wutal lay député Karim Wade biñ amé entre intercoalition biñu biñu gagné ba ba am 24 député dafa génn ñëkënte bind mom di bakku di bak APR tudul yewu askan tudul tuddul Pastef tuddul kenn dafa génn gaw bakku légui nak Pastef bu taxawee mu ne sama bannière parti laay deme cela veut dire que mooy PDS la bëgg na leen léegi bu dee da ngeen di nekk ak man allié ak ci ñëw leen. bi mu ko waxee ñaata fan nga ci teg PDS PDS dem wuti dem wuti lu def. dem ah jour ba rek laa daal di dem yoonam parce que xam na ne kon lii moom du ko arrangé mooy lam bëggoon nax wala nañ ma jégal baat bi gars yi dañ naan caga kenn du ko nax ñaari yoon maanaam nax fat ci ndab fataat ci du noonu andon nañu ak ñom amuñ ci ndam tay pastef teg na ah, ah, ben ben, ben benn stratégie boo xam ku bëgg and ak mom te yalla tax di nga and ak mom parce que gis nga tey ah, ab nu tuddati mamadou lamine diallo mamadou lamine diallo marito ñaan ñom malik gak ñom ñep rejoindre nañ amuñ ci problème ba ci ñom may mëna a busaak ñoom ñëpp rejoindre nañ mais pds gi nga xamne dafa am lu mu doon lal ci suuf ñom da nga gis na dem nañ wa parce que euh, man de lima gis moy circle loolu noonu pastef def amul benn be lenn lu ci jublu won lul sécuriser PDS ba boudi ande ak mom ëllëg du ko bàyyi. Mhm. PDS gis nañ ne loolu arrangé wu leen dem nañ. Mhm. waaw en ça en ça mais dafa mel ni jamono ji alliance yi ku nek da nga delu sa kër baay. gis nañu euh, Idrissa Seck ak partem euh, ki nga xamantene moy APR euh, Macky Sall dañu ja ak wa PDS. daal di mhm. def coalition. Khalifa Babacar Sall aussi même su fekkee ni PDS dafa diviser wu am ñu jappalé Amadou Ba. am ñu jappalé PDS. donc ñan ñoo ci perte ci jeu des alliances boobu noonu coalition moo am muy bu piiru nek nga xam pur, sam sa kàddu khalifa wa sam sa Fall Anta baba Bokum euh, je pense ak Fall ñu sommes les yewi voilà euh, fofu nak premier problème non, dama koy def par par par groupe par groupe. premier affaire bi may jëk wax moy seigne Moustapha nak dama ci am sañ seigne bu bari. Mhm. ndax sama la sama Mhm. sëñ Moustapha Sy du ma nangu kenn di ko nax quatre députés yi moom moo ko moom su mu sëñ Moustapha bu àndeek ak bu Khalifa, ak xalifaak bu ànd ak Pape Djibril bu andout ak mom quatre députés mom sëñ Moustapha mën ko am. foofu lay daggee ci quatre députés yoy donc ci télé bi euh, dañ leen di baye ngay dem journal 20h ak euh, Assane Gueye mais on continue sur YouTube. Safiatou si c'est plutôt tout de suite le journal de 20h mais on est toujours euh, sur YouTube pour le moment on est 15 000 donc restez connectés bou len zappé. na 15 000 resté ñeneen ñi nekkoon ci télé bi fekk ñu ci YouTube ñu compo euh, ñu continuer waxtaan ak Cheikh Bara Ndiaye tout de suite le journal de 20h et merci à l'équipe

mais du man de du ma xelal mukk waa PUR ñuy nangoo jël benn député xanaa ñu mu yé sëñ bi yéene leen may leen parce que ñoom moom ku ci làqatuwul ci ginnaaw piir nax leen doo am député. kon xalifa na jiite na jiite coalition boobu demal jël chiffre bi mu yoree su ci dara wàññi ko waatee rek du am député moom. Hmm. Pape Djibril 18000 voix la am kooku boobu mënut a dem Pili Forest. Anta 40000 voix mënut a am Pili Forest. Déthié Fall kasaalika mënu ko am amu ci kenn ko am Pili Forest. kon donc pire lañ bëgg a nax pire lañ bëgg a nax parce que pire yor na quatre députés te moo fi tane. Mhm. penc mépp moo fi tane. léegi nag moom bu fekkente ne ñoom nangu nañ pire jël quatre députés teg nee ñaari góoram ñaari jigéenam li ci des ñu séddoo ko xayrun su loolu amul man damaa jàpp ne dañoo bëgg a nax waa pire. kon de Anta jàll na ndax fii moo fi jigéen. parité mais pire am nay jigéen. waaw na sëñ Moustapha jël moom. teg ci kaw. jëlub jigéenam teg ci kaw jëlaat ko député Babacar Kebe mais ca euh, teg ci kaw honorable Kebe doo ko jëlaat jigéenam teg ci doo ko jox gaay mais bu mu nangu na jiital kaatam daal doo ko jox na jiital kaatam parce que moom kaat la bu àndeek ñëpp ak bu àndut kenn kaat député moom sa Moustapha mën na ko am parce que mbooloo mat na ko voilà résultat élection yi mas a dem yépp boo ko déchiffré dina mais est-ce mënuñu ko mesurer waaw non xaaral ma jàngatal la ko rek parce que pire man dañu man man politiquement man bu ma leen doon xelal man damay wuti ay personnalité local mooy Abdou Karim Sall tey mer na dem na da nga koy ñëw rejoindre ko mhm. ne ko nekkal ma mbaaw li ma fa am mu jël ko Abdou Karim dina am fit. pour département Mbaaw mu dem. département Pikine nga ñëw département Pikine. nga dem Louga dem jëli Moustapha Moustapha Diop. ne mhm. ko léegi am naa man am mbooloo Louga yow yaa ngi fi sampal ma dem nga jël ko góor ki ma jël ko jigéen gi. nga ñëw tey par exemple fu mel ne Thiès. Mhm. nga dem jéem a waxtaan ak ku mel ne tey Thierno Alassane Sall wala wala Idrissa Seck wala keneen nga ne ko resal resal Thiès nga jël li ma fi yor léegi pur national bi lu mu fi am jël. Mhm. loolu moo nekkoon calcul bu ci waa mais yow tey Pape Djibril Fall ak Déthié Fall ak Anta Babacar Ngom ah ak Pape Djibril Fall Déthié Fall Anta Babacar Ngom Khalifa Sall vraiment ñoom ci ci ci ci ci boo leen doon caricature ci politique day benn benn nit. waaw boo leen ak boo xoolee seen résultat am ci présidentielle bi. ñoom euh, juróom ñëpp boo leen doolee ne benn nit nga am parce que benn benn façon profil nga am par exemple tey amu ci kenn koo xam ne am nga autorité localité mm-hmm. amu ci. amu ci ñoom ñëpp. amu ci benn Pape département de Mbour. Pape Djibril Fall amul benn département non li mu am akus néew ci àdduna. Mhm. maanaam sur le plan national la. dañuy nekk Kédougou fukk nekk Casamance juróom nekk Ndar juróom benn nekk fee noonu la ko amee mais amul benn département tey ci Sénégal boo xam ne Pape Djibril nit mën naa tax mu gañe ko loolu xam na ko. waaw ah. bu ñu cumulé ñoom ñëpp lu ñu am ci présidentielle bi waa pur pur moo ëppale pourcentage. pur mooy chef bi. moo na jël ñeenti député bu dee Bougane ak na bokkum man Bougane bugguma di analyser politique di ko ci dugal parce que euh, man japp naa ne mënul def changement bu bari. maanaam guñ ko dal ci poids politique. demul élection non xam nga Bougane tay amon na sa fait location mom mu dem. mom kasse waron dem defar listam pour que ñu xam ne bu Bougane li lay peese ci politique. Mhm. parce que mës dem élection am 675 voix. 700 voix wa moins de 700 voix mais Bougane ak tierno bokum dañuy yak dañoo yakal dañoo yakal pur yakal ñom ñom Anta Babacar Ngom te wallahi bu démé dinañ ko xam. parce que ñoom dañoo Bougane dafa def loo xamante ne ak Thierno Bocoum loo xam ne sénégalais yi mënuñ ko comprendre. muy lan parce que yow mënoo nangu nguur goo xam ne 54 pour cent lañ leen wateel ndam li rafet bay bëgg a dee nga ñëw taxaw di saaga ñi ko wateel di saaga président bi def nañ ko. dañoo teel a wu daal. oui mi ngi mel ne nga dem ci ngénte mhm. ñii séddale laax yi di tudd doom ji nga naan xale bi du tekkeeg dina tekki. xam nga nit ñi duñ xool xale bi dañu naan yow dof nga dañ naan nga ñaan liñ def dafa am luñ def lo xamne politique nangu ko man bëggaan sama nit la Amon na ci mom sympathie de amon na ci sama xol capital de sympathie bu mu amon mais bima ko gisé premier mois yi mhm. nguur gi vraiment man mënatuma ko supporter parce que lolu nit daf doon saga, ñun ñiko watel lañu doon saga barki dem lan la taxaw wax directement mu taxaw ne président bi fi nek xoosmaa ñapp la loolu article quatre-vingt mën na ko ci. mais euh, Ousmane ñàpp sax moom dama ne la xam nga daal di waxaat ne du nit ku am charisme. waaw loolu da tey gënewul moom. ci président xam na institution mais Bougane moo am charisme. yow Bougane bu la wanee ginnaaw nga defe ne kër brise la jóge ah bi yow nit koo xam ne xamoo biir beeg taar yu la ci ëpp nga naan kii amut amut charisme ah di dëxër dëxër yi yow Bougane Bougane bu dee charisme bu jomaayoo ko ko ëppale. parce que yow mënoo xam ba xam castingu kër la bàyyi ko xamut góor gu waŋ di wër wëgëri ah léegi yow te bugan seetlul bugan buy def conférence de presse eh. No xara rek conférence de presse bugan conférence de presse bugan xam nga lu muy def drapé wuma président de la république nga ne amul charisme te yow loo am yow kan mo am charisme ko wang moy charisme mm-hmm. ah, bugan day tok mm. demal xolal nak li lay wax man dama am jot damay tok ne ni di deg bugan day wote conférence de presse ba ñepp tok man finalement dama dul xam ba xam parti bi nop sa bop lu tuddu wala gem sa bop parce que yow da ngay top nan bu bugan ne bugaan xam nako bugan bugaan wax ñi tontu bugaan bugaan ñewat bugaan nga xam conférence de presse bi yépp bu doon 30 minutes dina ci utiliser bato bugaan 60 fois la ci dess la ci dess ak su new fen fen fen fen fen dal di dem. pour yow ñu ñu mandal ko service kon. non bugaan le fait que bugaan and wax xaaral xam nga bugan day def lo comprendre bugan day def lo xamne culture Sénégal nanguwu. Hmm. gis nga tay ji sonko bu jëlone rakam ju jigen wala rakam ju góor wala mu jël ab jox ko parole maanaam nga xam ne moo yor porte parole parti bi li baax ci sonk lépp rakkam a koy wax wala doomam léegi sénégalais yi bàyyi mm-hmm. sénégalais nanguwul gis nga sëriñ si nga xam ne tey jii sëñ Muntaxa Mbàkke nga xam ne maanaam fi mu toog maamam sëriñ Tubaa ko moom mm-hmm. maanaam ci bangum maamam la toog toogaay sëñ Tubaa la wala sëriñ Saaliwu Mbàkke nga xam ne toogaay sëñ Tubaa la toog mm-hmm. doo mës a dégg ñu utiliser baatu baay wala baatu maam parce que baay gi ak maam gi dañ koy jël teg nee sol boobu taalibe diine sax pour nga liggéeyal sëriñ bi sax da ngay nekkub taalibe rek Tek fële affaire wu jur ak yooyu mais bu day bëgg yow yow yow ko xam sab télé sab rajo sab journal ñoy ñom nga yoré ñuy kabar ci yow di selmal ci yow lolu yow yow sénégalais normal bu la sétané du ko nangu bu doon sa jabar manam da nga gis ni dafa am ego dal, man la man la man la gis nga gis nga xolal gis nga sénégal sénégalais nanguul jëkkeur di wax yenn ci jawum jabaram nanguwuñ jabar di wax yenn ci jëkkeuram mhm. nanguwuñ bay bu wax yenn ci dom ji nangu wuñ rakk ju wax yenn yi ci mag ñi bu gaan nag dafa bëgg teleem di wax yenn yi ci borom télé bi mhm. sénégalais nanguwul loolu bu gaan te xam nga lu mu koy jural télé bi dootu crédible moom politique du ci avancé parce que nit ñi li buñ koy dégloo dañ koy gën a bañ télé bi tamit dafa nekk duñ leen jàppe ñu crédible parce que dama la wax benn affaire yow mas nga gis ben membre gëm sa bopp boo xam ne xamee woo tv wax ma ben membre gëm sa bopp rek boo xam yow seen xamee woo ko tv membre gëm sa bopp égal nek seen tv di wax loolu lan la loolu politique la est-ce que ñeme nga yow benn journaliste su seen TV te maa ngi leen di défier journaliste su TV bu toog direct wala nga bind ko sa page Facebook nga ne bugaan mënul politique d'accord ak moom. ah Cheikh Bara soo koy def ay journaliste libre ñoo fa nekk aussi. peut être ñeneen ñi séddee chronique ñeneen ñi séddee chroniqueur. am na man défier naa leen man. na benn journaliste seen TV taxaw ci télé. wala ci YouTube wala ci eh, dama ne na ko ci kenn def ku ci def ñu dàq la. Hmm. kon kooku yow amoo équilibre wax ci sax koo xam ne Bougane day opposé woon moom Bougane ni muy politiquer du dem te day gis nga bu duggee ci ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom pire ak yooyu da leen di indil parce que dafa am dafa am ay dafa dafa amul amul lu leen mën a indil politiquement te moom bu yoroon xaalis nii nii day demal boppam. bu yoroon waaw dafa yorul xaalis. kon a ngay sous-entendre yorul. dama ne la Bougane bu man kay loolu xam nga Bougane xam naa ko te du ma dof man ci dëkk bi laa ne. mais xam ko daa tax nga xam ay bien dama ne la. xam naa ne man dama ne la bugaan bu yoroon xaalis laa wax de. président 15 millions wallaahi. xanaa 15 millions maag Issa mii sax mën ko mën ko lijjanti à peu près yow bugaan boo yaakaaroon ne day campagne campagne bu normal ñaata lay yore. gis nañ oto yu muy. waaw waxuma loolu man xam nga man dem naa ya, campagne. 10 jours man xam nga sur na ñaata laa doon ñaata lañ doon lekk. 2 millions moo ma doon yor par jour. boo jëndee essence. fay 2 millions par jour oui. Euh, maanaam seen coalition bi yëpp 15000 nga leen di fay. modap ok yëpp sur ne 15000. essence oto yëpp da ngay xëy sol oto bu nekk da nga koo luyee journée vingt mille vingt cinq mille ba trente mille ba quarante mille sax am na oto yoo xam ne journée yëpp boo ko génnee génnee li ngay def ci essence génnee garde corps yi génnee li ñuy lekk journée deux millions la mais loolu mënut a te bugaan na dafa am entreprise am employé dama ne xam nga di def loolu ba pare xam ne wóorul la ba xam da nga gañeem déet parce que nag ku dem Sandaga xam sa bopp de Sénégalais fii ku jaar Sandaga bëccëg xam nga li ngay peese bugaan moo la gën a ne bu demoon moom investir bu ñëwee du indi prix forest mais Cheikh Bara coalition bi nga jàkkaarloo ni sànq Thierno Bocoum non xaaral xaaral ma ci cheminement Thierno Bocoum amul lu muy indil nit xanaa Facebook bi lay nekk di leen fa bindal bu weesoo loolu bu Facebook bu connexion amut ñàkk nañ kon ñoom pire lan la ñuy wër ci bugaan lan la ñuy wër ci lii bu dee Barthélemy nag xalifa bu dee da ngay seetlu foofu lan la fa Barth wut photo bi nga Barth ngi ci biir mhm. kan moo ci leader bi xalifa xanaa lu fa Barth def kon da koy ah, gunge rek xanaa amul ko ko gunge am tababa kon Ngom amul ko ko gunge ay bol bol lañ mat ba non dama né lutax la wax mu and ak mom top ko ba ca taatu fa ñi négocier di dégg kon yow da nga junj né li ñu nit ñi di ruuma ñaar nan taxaw dafa am ñaari chef dama la déggo wunu da ko yor caisse gi am ko yor dem di ko négocier ta mom togu di dégg koku ba la ko jox mais lool boko waxé Cheikh Bara da nga bëgg wax né kon taxaw dafa am ñaari chef dama né la Bart dal bu wolu won Khalifa da koy bayyi mu dem négocier ko yàgg naa gunge Khalifa c'est pas la première fois Cheikh Tidiane mi amna ñum andal Anta mais amna ñum andal Dugaan mais amna na ñum àndal Thierno Bokum Pape jibril amna na andal pourquoi mom barke ñëw duggu ci bir na fi ci bax lu parce que proximité bu mu am ak khalifa ay khalifa ah waaw pour ah waaw parce que sàmm sa kàddu kay moy liñ wax ni bu ken wor rek ay warkat do ngay wax nañ sàmm kàddu gi de <laughs> da koy sutee maanaam kon xalifa sàll nit man dal dama la bu wax dal xam nga dal dama la bo re wax waxtaale ko fenkat da nga daan ko bu ko nit ñi de waaye booy wax ko warkat da nga daan ko dañ la ko ah sa way nak liñ wax ni nak nañ ko sam li tax kay ñoom ñu toog ba yàgg ñu naan sa kàddu kay. xam nga ne war ma nga taxaw pour yow kon. pour pour mu leer bat li jaar. man daal dama ne dama ne la Bart yor xaalis liñ bëgg ñoom Bart koy def. moo yor kees gi daal waaw. moo day surveiller. Mm. oui. Amadou Ba dem na fu mu eh, nga xam ne la la eh, la dox muy parti socialiste deuxième coalition bi lay dem na ci gauche APR PDS ak mi. waaw premier problème. mooy APR bu fekkente ne PDS dafa dugg ci APR man xam naa waa Touba rek la mu fa am ak feneen am na militant fidèle Wàdd yoo xam ne xalaatuñoo jël marron bees moom di ko wate moom xalaatuñu